aousubillahi sami sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasoulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafahu qawli merci monsieur le président monsieur le ministre du travail monsieur le ministre des finances et du budget monsieur le ministre de l'intérieur et ses collaborateurs chers collègues députés ñu ngi leen di nuyu monsieur le ministre euh, dañu constater ne jamono yi insécurité bi dafa bari Sénégal trop euh, rawatina ñi nga xamante dañu dëkk ci zone yi nga xamante dafa am stade par exemple lu mel ni kaawu Médina stade Iba bu lamb amé fofu ñun riverains yi dañuy sonn trop euh, ak nawetaan aussi ñu ngi leen di ñaan aussi yu mel non bu fa amaté comme mënuñu leen téré ñu bañ fa def làmb mënuñu leen téré ñu bañ fa def ay nawetaan mais ngeen renforcer sécurité bi pour que population mëna nekk ci jamm parce que vraiment sonal nañu trop lacrymogène dañuy sanni nit ñi xam nga maire di feebar fi ñi am problème cœur lool mom ñu ngi leen di ñaan ngeen veiller ci lool bu baaxa baaxa baax bu weesoo loolu aussi ba tey ci Medina lay des ba tey parce que dañu gis ne euh, avenue Malick Sy bi agression yi dafa bëri parce que man mii di wax ak yow toog naa sama biir oto teg sama téléphone am ñu dóor benn côté bi ma xool ñu jël sama téléphone de l'autre côté bi ma fa jógee ma dem euh, police quatrième pour def plainte bi ma demee police quatrième aussi li ma remarqué foofu parce que ci jamono jamonoy nawet la tombé loon ma gis ne ñoom aussi ñi ngi ci condition yu difficile parce que police quatrième ku ko wax xam ne police police bu yàgg la te aussi war nañ ko réfectionner bâtiment bi dafa yàgg euh, ñi ngi gis ne maa ngi dugg fekk commissaire bi fekk dama ñëwoon di présenté wu boobu élection yi ñi ngi doog a gagné ma ñëw di di présenté wu en tant que député bi ma ñëwee maa ngi fekk bureau di senn mi ngi teg ay siwo nekk ci condition yu métti kon je pense que ne war nañu améliorer seen travail pour ñu mën a seen condition pour ñu mën a liggéey liggéey bi nga xamante ne moo ci war loolu moom ñu ngi la koy ñaan ñun waa Medina nga renforcer waat police quatrième police Rebeuss aussi nga euh, jox leen aussi ay moto pour que ñu mën a def seen liggéey comme ni mu ko waree je vous remercie Merci, chers collègues.